yu euh, xibaar yi muy rek li gën a fës ci yéenekaay yi nu cëmp ësloof ci li a fës ci yéenekaay yi bokk yi mbaa jàmm ngeenam ñun dey moom la fanaanoo ubbil ma yëglekaay bi standard xëy ci xëtam bu njëkk noota alliance di lang gi ànd ak Yaya Jammeh dinañu jongante ci ñetti tund maanaam foori Jones bu sukkandikoo ci yëglekaay bi Pape Modou Mbow ki yor kàddu waa noota alliance ci waxtaan wu mu ak Star Radio daal dina dëggal ne ñoom dinañu rek jongante ci jongantey goxuxaan yi ca biir mooy doon la waaxub Noto Alliance ci tundub KMC ñu tekk ci ne dinañu am lu jéggi dayoo ci jongante yi moom Pa Modou mu àddu ci bu ñu ko rek falee nee na li muy njëkk def mooy lépp luy kansul bi di def dina ko rek méngale ak jamono maanaam dina rek digitalise lépp lu jëm ci kansul process yi ngir rek xeex lubal maanaam corruption ba noppi itam dina yokk payoruk liggéeykat yi ngir rek mën a am ci ñoom liggéey bu mucc ay ngir rek gox bi mën a naat yemul foofu daal na àddu ci tuuma yes teg ci seen kaw ne UDP moo nekk ci seen ginnaaw nee na loolu wérul moom xamul taalib te joxante yoxo ak taalib rek rek taalib di rek poussé ngir rek mu taxaw nee na taalib sañul sax taxaw ci kanamam di ko wax lu jëm ci loolu ndax nag moom ku moom boppam la te nag kenn gi xeex gi ngir rek ñu doxal sàkkuteefu TRRC white paper yi léegi léegi maanaam ñu implement ko ci nu mu gën a gaawee ci weer fukk gi si waloon na sàkkuteefu TRRC white paper bi waaye nag ba tey lu jëm ci doxal gi France daal dina naqdin ñoom nag li ñuy sàkku ci nguur gi mooy rek ñu doxal ko maanaam ñu implément ko ci ni mu gën a gaawee ubbil ma yëglekaay bi jenn waaye juy wuyoo ci Pa Modou Coulibaly la ñu rek teg loxo ba yóbbu ko ci kanamu attekaay bi las koy tuumaal mooy dafa rek dajji ab néeg dugg fa sàcc fa lu ëpp ñetti million ci kopparu dalasi démb nag ci janoom ak attekat bi moo ngi sàkku ngir rek ñu daal di koy biil waaye nag toppekat bi dafa rek ñaan attekat bi ngir rek mu gàntal ko loolu ndax nag li mu sàcc faaw rek ñu jotaat ko te nag police ñoo ngi ci kaw loolu ngir rek daal di yooyu bi nag dàq nañu fukki fan ci weeru mi ngir rek ñu wéyal ko ba xam des koy béel am déet ubbil ma yëglekaay bi foor yaa xëy bind ci xëtam mu njëkk kuréel gi ëmb paj mi ci àddina si WHO daal dinañu artu di xam le ne am na beneen xeetu garab bés rek defaree India te nag baaxul ndax nag dafa rek daal di am tooke muy rek ab sirop ñoo ngi koy nag moytuloo ñëpp ubbil ma yëglekaay bi kuréel gi yor wàllum koom ci réew mi muy National Economic Council ñoo ngi doon diisoo ci lu jëm ci yéegaayu xaalisu biti réew yi mu ci rek biir réew mi maanaam foreign bi njiiti moo ko sooke ngir rek la njëkk def ba indi ci saafara ñu delluwaat standard ci wàllu tàggat yaram ca réewum Soudan ginnaaw xeexoo ba fa nekk ci Gambien ya fa nekk di coupé maanaam football ku ci gën a ràññee di Lamine Diadio daal dina jógee ci réew ma wutali Égypte ngir rek ñëw ci réew mi Gambia itam nag Cellou Diallo moom itam nag moo ngi ci yoon wi ngir rek ñibbisi maa la ko wax gar mi balaa nga naan naam danga fay ne yàlla na jàmm dellusiwaat Soudan toppal xibaar yi ci Eye